ndeysaan deuxième combat ba nekk noonu ngi ci biir géew bi da ñaabu ñu ngi ñaari mbëri a ngi toon ndeysaan abi bi atana waaw mi ngi noonu ndeysaan deuxième combat ba nekk noonu ndeysaan ci biir géew bi mi noonu at bi jox na leen avertissement jox na ñaabu avertissement jox na Mamolo avertissement ku ci nekk jël nga benn avertissement ndeysaan mi ngi noonu ndeysaan deuxième combat ba nekk noonu journée Ouzin production la Mamolo moo leen wan ginnaaw waaye ñaabu moom nga jàkkaar Mamolo sànni na léegi benn góos attention ñaari mbër yaa ngi léewtoo diggante ñaabu ak Mamadou ñaabu ak Mamadou ndeysaan ñu ngi noonu di léewtoo attention Mamadou mbëm na léegi waaye demut attention attention Mama Lo mbëb na léegi taxaw waaye tamit taxaw ndeysaan Mama Lo ak ñaabu Mama Lo ñaabu Mama moo féete jaay càmmoñ ngeen di gis noonu ñaabu moo nekk nii ñaabu moom ngeen féete ndeyjoor waaye Mamadou Mamadou ak ñaabu mu déglu déglu ne ñoom ñaar ndeysaan di fàttali ku ci nekk am nga benn avertissement ndax boobu ba léegi ñu ngi léegi coup franc jàpp amagut dara xawagut arbitre bi jox leen ñu ngi leewtoo ñoom ñaar ñaabu ak Mamalo man loolu moo ma jaaxal kay boobu ba ku fañ jugut arbitre bi jox na leen avertissement waaye ba léegi ñu ngi leewtoo rek ñaabu ak mi ngi noonu Habib atawaan na Mama Lo jël na deux avertissement tamit jël na deuxième avertissement am arbitre bi sifla waa na ndeysaan attention Mama Lo dóor na ñaar bu dóor na eh, xew foofu ñu bëgg jeexal combat bi léegi xanaa Mama Lo ak ñaabu man loolu moo ma jaaxal. nañ bëre la ñu bëre cinq minutes ak dara xewagul attention Mama Lo ñaabu ñaabu moo leen wan ginnaaw waaye Mama Lo moom ngeen jaataar lool Mama Lo mi ngi jox ci kawam jàppante nañ ay baaraam jàppante nañ ñoom ñaar ay la la Mama Lo ak ñaabu Lo Niang ñu ngi lewtoo c'est la mi-temps c'est la minutes ndeysaan deuxième combat baa ngi noonu deuxième bi di dox si ak Mama Lo abdi bi sib la waane ndeysaan génn seen diggante Mama Lo wan ginnaaw Niang Bou moom ngeen jàkkaar lool ñu ngi ci deuxième mi booba léegi ñaari mbër yi ñu ngi dara xewut ñu xool li xew foofu ba léegi ñu ngi jàpp Leewtoo rek ñaari mbëri mel nañoo ragalante loolu moo ma jaaxal Mama Lo ak ñaabu ñaabu wàcc na wàcc na ba ci suuf attention ñaabu sànni na léegi benn góos ay dalut ñu ngi noonu di leewtoo ñaari mbëri ndeysaan diggante ñaabu ak Mamadou ba léegi ñaari mbëri ñu ngi leewtoo dara xewut Mamadou ñaabu bëri na cinq minutes leewtoo kese la dara xewut moo tax waroon naa jeex bu Bamba Thiam Mamalo ak Ñaabo ñaari mbër yaa ngi léewtoo booba léegi ndeysaan léewtoo nañ cinq minutes mi-temps ñëwaat deux heures mi-temps ñu bëgg fee waat cinq minutes ay waay ji Mamalo ma la wan ginnaaw Ñaabo moom ngeen jàkkaar lool station Mamalo sànni na na ay lay la seen dóori dóori cokkaasa rek attention ñaabo maabo maabo ñamalo mamalo mamalo daw jël ko laa ilaaha illallaah ñaabu daan na ñaabu oh, daan na ko jël daan na ko ñaabu ndeysaan gone parce que soow gone parce que am na ndam ndeysaan ñaabu daan na ko bu rëy waaye xoolal loolu ma ngay bàkku ma ngay bàkku ndeysaan oxo mi ngi noonu ndeysaan yanu na ko suba <laughs> na ko suba di daw ak moom ndeysaan sosol na ko kii de na si ko subi ndeysaan xanaa lépp moom la <laughs>